adolescente ndax dafa nekk lu xaw a dangereuse tuuti laal ndaw ñu baree bare muy wàllu Barça Barça gi mu mel na jamono ji ndaw ñi euh, pare nañu pour dem gis naa koo xam ni xaritam dem na des te waaye moom nee na bu gisoon gaal tey day dem lan mooy nekk atte ñooñu nga xam ni am ñu jàpp ni xarul am ñu ni déedéet bu xam bëgg dara la ban xam nga moom du xaru du xaru parce que li ngay jàppoo ne xaru la xaru moo di loo xam ne yaa ko tey da nga koo sabab dañ la koo def nga sabab lu ko ne damay xaru dem naan poson wala nga tëb fenn wala nga jam sa bopp paaka loolu mooy xaru la joxul nga kii nag dafa am yéene dem bërëb sàngam dama am yéene dem Italie jël sama xaalis fay ko nit dana fay xaalisam di ma fay la ma dee loolu foo ko gis mhm. kaay ma fay la sama xaalis kay ñu dem am nañu jaar ci gaal euh, gaal gi am na rëcc di mhm. xanaa kon dañoo xaru mais ñu fi des bari na oustaz non dama ne xanaa dañoo xaru ñoom mhm. xam nga am ñu rëcc am na ñu des waaye ñu rëcc xanaa dañoo ar xaru kenn xaruwul dañ doon wuuti xam nga lu ñu war a wax mooy ñu dimbale xale yi jàppale leen ba ñu am lu ñu jàpp parce que mën ngaa am sa pap am sa yaay ñuy dund ba màgget bu ñu xëyee du ñu ndékki mais doom du ko seetaan bu ñu xëyee du ñu bu reer jotee du ñu reer bu añ jotee du ñu añ loolu kay na ngay mujj def nga xaru benn yoon waaw ah, bu dee xaru la nga xaru benn bii xaru du dem safara xataraayu bii bii xataraayu la tudd tuddul xaru kii da ngaa xataraayu ne damay dem par force waaw su ma amee baax na su ma amul baax na waaw kay kooku dafa xataraayu xaru nag mooy kii koy def da kuy bëgg damay bëgg a dee dama muñ mënatuma muñ maa ngi dee maa ngi dee bokkul ak maa ngi xataraayu ba xam waaw ñoom dañu xataraayu waaye bu ko defee nag ñu naan dañoo dee ñu ko def dañuy dañuy dee ah, xaru lañu def nangam nangam kenn xaruwul même bu fekkee risque dee yi moo ëpp risque du moo ëpp dund bi bi ndax gis nañu bu fekkee 15 gaal moo dem 10 yëpp day soox waaw est-ce que boobaa tamit euh, warul tax mu mën cee def ndànk. ok def ndànk gi moom d'accord naa ci. <laughs> def ci ndànk ànd ceeg sago demee xel moo gën <laughs> waaye daal lu mën a am nañu puus xale yi <laughs> jàppale leen ci seen bëgg-bëgg ndax réew mi nag liggéey amu fi réew bu fa liggéey amul nag te yow nga war a liggéey nooy def man gis naa fii nu mu Euh, croisement Cambérène croisement Cambérène ña fay jaay dañuy bëgg a dee dañuy daw a daw a nañ leen dàq rek waaw fuñ aw ñu kar leen dàq leen fu fépp lañ leen dàq mais loolu réew ma nga nekk buñ la defee noonu nooy def réew ma nga nekk dëkk fa ñu lay xañ foo taxaw jaay ah voilà loolu loolu loolu kenn xamul la su ko defee dañuy daw di àkk daw fa la ñuy daw fii nga gis ko yor mbuusam daw bu sori te buñ la jàppee nangu sa nangu sa bagage nangu sa bagage buñ nangoo sa bagage nga torox donc réew mi ne ñu xajal xale yi buñ leen xajal yi ñu liggéey su boobaa duñu am problème duñu am benn problème wala garage yi ngay gis garage yi Mbuur yeeg garage Dakar yeeg gaa yaa ngi jël ay oto ay oto lañ jël yoo xam ne kuy dem rek jël la mhm. waaw buñ leen jàppee du wax mhm. waaw donc loolu lépp boo ko seetee mhm. dafay doon retard retard la ci suñu réew mhm. nañu jàppale xale yi mhm. ndax ñu dem dañ leen jàppale ñu dem am ñu jàpp ni ndaw ñi dañoo yàkkamti ndax vu que euh, ay chômeur demul ñuy liggéey ba dajale quatre cent mille cinq cent mille ñooy dem est-ce que loolu euh, am ñu jàpp ni bu ñooñu liggéey ba am quatre cent mille cinq cent mille bu ñu toogoon mënees na am lu këpp dana xaw a yàkkamti gis nga ñooñu liggéey ba am quatre cent mille cinq cent mille bu ñu la waxoon lañ ci daj nga ne déedéet ñii seen yaay moo jaay terrain am mm-hmm. ñii seen yaay moo jaay alalam mm-hmm. ñii seen yaay moo jaay ooram mm-hmm. def ko ci jox leen ko ñu dem waaye du lu ñu liggéey ba mu daje nekk xaaj déedéet seen yaay moo leen ko jox waaw walla seen baay jox leen ko baa mu teggi natt jox leen ñu dem benn nag ñu dem man maa ngi ñoo xam ne rëcc nañ Mm-hmm. dem nañ ci gaal gi mm-hmm. de bu jëkk ci ca dem yu jëkk yi lañ dem mm-hmm. am ñu ba rëcc nañ gaal yi am nañ ci dem rëcc nañ mais ak rëcc ak ba ñu rëcc rekk fi ne ku yàlla ne daal euh, sa dee ci géej gi la nekk ci gaal yi soo demee ci ngay dee ku yàlla ne doo ci dee doo ci dee dañ lay ku yàlla ne dem da liggéey da nga dem liggéey waaw mbir yi dañ ciy boole yàlla doog mu doog a neex waaye buñ ko ci génnee du neex yow yaa ngi nii dangay toog dangay gis koo xam ne fii amul dara liggéeyul deful dara muy xalaatu sax dem ci gaal yi xalaatu ko waaw xam nga xalaatoo mm-hmm. mais am na koo xam ne tey looloo ko teree nelaw mm-hmm. dangay xam ne yàlla moo tuddee moo tëddee leen ay jaamam kii day bëgg lii kii bañ lii kii bañ lee kii bëgg lee loolu nag noonu la demee su boobaa nag yow yaay seet rek mm-hmm. ki bëgg lii na def kii bañ lii na def rek a bàyyi rek loolu la ban politique lan moo mën a nekk solution bi ban politique lan mën a mettre en place de ce fait pour éradiquer li nga xam ne mooy fléau bi. ah xanaa yow jox leen liggéey wutal leen liggéey dong mooy politique wutal leen liggéey xam nga waxoon nañ fi ne dinañ leen jox euh, at weeru ne ñaata milliards. DER ci euh, euh, kii yooyu amul fa. ah ngay dee rek. kii tegoon nañu benn benn benn benn politique en place d'ailleurs pour eh, financer ay yenn jeunes yi xam ne am projet. waaw ah, xam nga waxoon nañ fi ni weer ni un milliard xaw ma. Mhm. ah waaw léegi loola anam. Mhm. xale yi dañ leen di taxaw mhm. parce que xale muy mujjee réew. réew xale yi koy mujjee mag du ko mujjee ndax mag jëkkee na ko ba pare. xale yi koy mujjee nag xale mi koy mujjee nag nañ ko jàppale waaw xam nga li tax réew mi bu ko ku ko yor da ngay soxor boo ko yoree dangay ngay jéem a def li ngay def lekk sàcc trian def lu ne li koy def mooy ba nga ko yoragul kenn toppatoo la nga yor ko nag sa bopp waaw loolu ko defee nit ñi nag ni politique bi ñu def mooy dimbale xale yi rek liñ leen dimbali ñu liggéey suñu jàppee ci dara rek bàyyi loolu dañ leen di dig te leen dig ñu fas ko yéenee def waaye dee rek dee dee dee kii dem dee kii dem yegg kii dem ñu téye kii ñu tëj ko loolu wax waaw macha allah loolu du wax gis naa jamono ji aussi El Hadj maa ngi lay wax ni saa su ne mën nga ñëw rek am ah, oustaz ragal naa jamono ji tamit am na benn actualité boo xam ni wax fa dëgg yàlla jamono ji muy semaine bi ñu génn ci coowal mbàkk yu fay doon may ay doomam waaye nit ñi xëy na mbakk yu fay may ñaari doomam maye ci xaalis grawul waaye Mbackiyou fay nit ñi doon ko xaar ni jëriñu Sëñ Tuubaa la muy xew ku toll na Wally Seck di musicien ñëw mu mel na am na ñu rafetlu woon loolu est-ce que gisee nga noonu yow. ñëw pour lan. ñëw way fa tamit. moom moo ko pour mu way. <laughs> waaye assisté na waaw toog na ca saal ba bi dama ne dama ne waykat bi moo ko fa woo wala woowu ko fa moo ko wayloo walla wayloo ko wala doomam ko woo ne ko damay xew mu ñëw way kan moo ko woo ah ay doomam ñoo ko wax ak <laughs> ay doomam ñoo ki ne mbàkk kii Wally Seck lañ bëgg ñoo wayal ñu suñu wóor na la waaw parce que dégg lañ ki jël kàddu bi mm. wax ko kanam bi dégg ah, yow mi demoon nga yow yaag moom a yem ay jarul wax demoon nga kay yaag moom a yem ah moom it dina ma xam mais jëwriñ nag xanaa bëggoo doon jëwriñ vraiment waa la xëy bi dañuy mm-hmm. kenn ku ne da ngay fexe sa tracé mu rafet mm-hmm. pour boo yeggee am woy yow bëgg ngaa doon jëwriñ léegi boo doonee jëwriñ nag ëllëg ah, ah voilà dañuy fàttali ko rek waaw c'est sa ku bëgg a doon jëwriñ noonu ngay def da ngay seet sa tracé mu rafet parce que du ñëpp la ñuy def jëwriñ man ngaa doon jëwriñ ti doo jëwriñ hmm? man ngaa doon jëwriñ ti doo jëwriñ ndax regg goo ci jëwriñ jëwriñ dañ ciy regg boo ci lekkee ba suur dara dootu la ñor waaw dara dootu la itteel dara dootu la fay daal lu dul jëwri ki nga nekk jëwrinam rek waaw sëñ tuubaa nga lekk ci ba suur naan ci ba màndi ci tuubaa sëñ Touba nga gisati leneen déedéet waaw boo ci lekk boo reggee ci yoon wi ba su ba ba sa biir fees dootoo gis leneen maye ay doomam te diina may na ko mu assister fi nga xamante ne fala ay toogam toog ak ay deram waykat taxaw fa di fa way yow yaa nga foon waaw mais ci diine lañ bëgg a xam waaw yow diine bokk ci diine ji <laughs> yéen oustaz dama ne ndax bokkoo ci diine ji rek kay maa ngi ci diine ji nañ ko ko teree lañ la ko tere uh-huh. nañ ko teree mag yu fay uh-huh. loolu noonu lañ la ko teree noonu lañ ko teree keneen ko fa toog uh-huh. waaw ñë ñëpp ci yem tere tere moom ñëpp a ci yem digle ñëpp a ci yem suñ ne tere nañ nàngam pour tout le monde bu ñu digle nañ nàngam pour tout le monde ku ko man rek ci nga bokk kon nag lu ñu tere ku ci ku ci dem yaa ci yaxam mag a xale ci yem ñëpp a ci yem bokk bakkaar bokk bokk bakkaar bi waaw suñ ko teree rek yéen a yem waaw am ñu jàpp ni musique dagan na ci ci ndax comme que ceet la rek lu ne dagan na wala demee waaw xam nga eh, yéen li bëgg du ma ko nangu li ngeen bëgg du ma ko nangu <laughs> ciit azeyt la tuddul ciit ci olof baat bi arab la azeyt da ngay taatu azeyt moom la tudd olof koy wax séer séer séer mais azeyt la tudd zeyt nag da ngay sol lu rafet sañse fan yooyu yow ngay ngay ngay ngay sol garambu bu baax soo say nangam nangam pour pour ndaw si sol lu rafet yaa ah yaa ngi sa seet bi waaw ah. moo tax ñu tuddee ko sañse mm-hmm. sañse la tudd sañse ak zeyt mooy sañse waaw sañse bis bi loolu la lu dagan mm-hmm. solal lu daganul bàyyi lu dagan defal lu daganul bàyyil waaw bu di jullit nga laax bu di jullit nga laax def fa affaire jullit nañ def euh, affaire jullit oh, même buñ fa doon def lu xaraam kenn du ko doon def lu xaraam fa dem sayt liñ bëgg nga def fa lu dagan lu dagan ci sayt ci ci ci sayt ba boo defee ñëpp xam ne lii dagan na waaye bépp sayt bu ñuy def ti lañ fay def xaraam daganul ku ko mën a def xaraam na xaraam na xaraam na ku ko mën a defit it du màgg ci yaw dara xaraam na rek waaw lu xaraam nag lu muy firi soo defee lu ñu tere ba pare wàccaat nga ba doon xale bu tuuti yow mag mi ko def wàcc nga ba doon gone gu tuuti soo bàyyee lu bon nag yéeg nga ba doon magum jëmm c'est ça yéeg nga ba doon magum jëmm kon ki wàcc ak ki yéeg du benn di wàcc ci yëgul na mu mel ne euh, phase boobu. xamante ne gis tey yenn alal yi nga xamante euh, ci def yàq na wala lu dul ceet ci yem. yàq yàq la kuloo washrabu wala tusrifoo yàlla. Mm-hmm. lekk leen naan leen waaye yem leen fa ngeen yem ca lekk ak naan. waaye bu leen ci dolli lu yàq lu yàq daganul yàq moom ceeta lu ci lépp ci yem daganul yàlla àndu ci waaw pour bari naa xaalis rek naa def li déedéet nit ñi xam ne bari naa xaalis naa xaalis du dara xaalis du dara xaalis du dara ñu ko def dara ñoom xamul xamuñu xew mais nekk nit gën am xaalis nekkal nit ku nite ñu xam ne yow nit ku nite nga waaye boo nekkee nit nite woo doo dara bu ko defee xaalis nag ah man xaalis laa ayoon damay def li damay déedéet yàlla nee na xaalis bi ma la jox lekk ci naan ci lii des na gàttal soo gisee ko soxla jox ko mu lekk naan keneen boo soxlaa nga jox ko mu lekk naan loolu la yàlla wax kuloo boo wala tusrifoo waaw waaw lekk leen mais bu leen yàq nag waaye yenn yàq la xam nga am na am na ñoo xam ne sax kooku tane ñooñu tane nañ mm. waaye sànni xaalis bi nii mm. dañ koy dañ koy day di ko def weesaaral nit ñi di jëkkanti di giiroo waaw yi nga ñuy def loolu dee leen xool rek te weer wi ñu ko defee ren bu delsee duñ ko mën a tide dootuñ ko mën parce que yàlla moo bëggul yàq yàlla mi lay may moo bëgg ngay defar di sakkanal di di di di denc loolu la yàlla bëgg waaye bëggul ngay yàq yàq baaxul waaw kuloo wa sharaboo wala foofu waaw waaw na laa laa yo monsir bi yàlla bëggul ñu yàq yàlla na ko bëggul ku lay bëgg xam yàlla na ñu yàq bëggu ma leen sopp ma leen kon kuy yàq kon ku lay bëgg ku la bëgg naa fekk la ku naa fekk la waaye ku yàq kenn du ko bëgg day dëgg mais ñu ngay déggee wax nañ ba ñu bu leen yàlla mayoon ba ñuy tàq seen doom ñu a def ko def ndax wax nañ buñ mënee jël illico nañ ko jël ba tey dagan na loolu dagan na di mu wàcc ci baas bi dagan na jël iliko def sa doom mu wàcc ci baas bi dagan parce que iliko nit a koy war iliko itam alaaji bul bul bul ne iliko iliko nit a koy war de non dama leen ne nit a koy war yi itam nag ah du dara nit a koy war parce que boo ko wàccee gaare ko fa nga ko gaare du fa jógee abadan yoo yoo wii naaw moo gën iliko yoo wii naaw moo ëpp daraja iliko ndax yoo mën na laa tee nelaw iliko boo ko taalul lu tàkk boo ko dawalul daw moo tax yoo moo gën a foor iliko def ci sa doom mu xam ne teral nga ko ndax dalaa teral ndax denc na boppam nëbb na boppam ba xëy am jëkkër benn góor tiimu ko nga won ko nekkoon ko nag maa la gën a tedd may nag danaa la teral ci li ma man ngay def ko ci avion iliko ba mu ñëw ba wàcc waaw ko itam teranga la teranga la rek waaw du tiitaru non lay te ban yàq du tiitaru du yàq mm-hmm. déedéet du tiitaru du yàq waaw du tiitaru du yàq waaw kon macha allah xam naa euh, <laughs> weekend bële passé mbakk yu fay la woon waaye weekend yi ñuy dugg incha allah presse bi la Gallo <laughs> suñu confrère day jël soxna incha allahu taala moom it dañuy seet presse yëpp nañ ko wàcc ñun <laughs> xam naa moom moom incha allah ay Aboubacrine Samb ay Mouhamed Niang ñoo ñoo fay teew moom ndax la moom allah mu mel na euh, bu nu brosaatee dugg ci ni nga xam ni mooy politique bi wax fa dëgg yàlla jamono ji mu mel na avenir u Sénégal